waroon te defante lu baax waroon dafa waxante lu baax lan moo fa am toog di reetante kontaanuñu lan moo fa am ku fi jekk sa morom dóor dam ba mu daanu daal di jékki lan moo fa am toog yàq koo xamante ne dangay toog ci daram nii di joo yàppam lii moo fi am kon nag bu ñoo ñu taxawee ñu tuddee ko war pour man duñu war nañu la nekk ci ñoom loolu nañ ma ne mhm. nañ toll lañ def un point un trait waaye ña ko topp duñu daw duñu puus duñu découragé àdduna du leen jaral moo xam Ousmane di dund tey wala ëllëg muy dem kaso ba tax nañu bàyyi ko kon ñooñu ñu fi mu nekk nii ñooy ñoo xamante ni nii duñ la wor jamais ñooñu ñoom ñoo jaral delloo njukkal waa pas ay ñi nga xam te ne dañoo nekk ci politique politique moom moom làmb joo xamante la macha allah moom ku nekk gis na ni muy dundee te duñu fang kenn ko géex merci pour politique. Euh, Jimbori euh, ñuy wax que ni communication yu bëri yi ñu gis euh, maître Ngagne Demba Touré di ko def ñi naan peut-être erreur la na ko moytu bu ko moytuwul peut-être li jàll président Ousmane Sonko mën na ko dal jàpp nga ni communication yu bëri yi muy def moom maître Ngagne mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci logique boobu ba léegi wala. Mm-hmm. non xam nga man maître Ngagne Demba Touré su ma ko doon conseil benn conseil laa koy jox. Mm. xam nga olof da daan wax gannaaw bu ki mbaar. Mm-hmm. bu fekkee dañoo téye Ousmane Sonko. te yow yaa fi des war nga taxaw bu bu fekkee dañoo téye Ousmane Sonko di la wër rek li la Ousmane doyee woon bàyyi nga ko bàyyi nga yoon. Hmm. xam nga Ousmane buñ ko gisatul dafa doon indi ay nit pour buñ ko gisatul jàpp ci ñim fi bàyyi ba keroog moom mu ñëwaat te politique noonu lay demee parce que ngañ bu mus bu bu demoon bu doon ngañ moo dem dina fi bàyyi sonk mu téye affaire bi Sonko fee mu nekk tamit nit ñi téye nañ te duñu bàyyi mais ngañ tamit nit yi dañ ko waroon saa bu ñu ko soxlaa gis ko. Hmm. te tamit ay nit booy jëflanteeg moom da ngay fexee jàng ñi ngay jëflanteel. pour nga xam ni ngay ni ngay jëflanteeg ñoom. mais bu doon man la ma conseillé ko. Hmm. man duma ko conseillé yenn communication yi. xoola yàq ak yooyu yëpp daganu hmm. kenn bu mu ko def. est-ce que xam nga Ousmane Sonko su fekkonte ne politique làmb la. man ma ni benn mbër dong moo ko fi ñeme mbër yi ci des yëpp kenn ñemewu ko. ban ko ñeme. benn mbër laa gis muy wax ci Ousmane sonk mooy Bougane. ah wax ko ca kaw. mais mbër yi ci des yëpp kenn ñemewu ko. le PDG le plus si sam bi ba mu daj ñemewuñ Sonko est-ce xam nga lu tax. lu tax parce que dañoo def dialogue politique waa PS waa PDS waa APR. ñoom ñëpp daje ñoom ñëpp daje. Hmm. ba xam ni ñoom ñëpp ñu ngi daje ñoom Idrissa Seck ak réew mi ak ñëpp daje. Hmm. tey jii bàyyi Ousmane Sonko muy teree ne boo arrangé wu leen ba Ousmane dugg ci biir kaso. kon bu ñu bàyyee Ousmane Ousmane boole leen ñoom ñëpp jàggi tay ci suuf ñaata mbër laa la limal fii. bari na trop du ñu ay mbër. Hmm. lu tax ñu ragal benn nit. bu njëkk ba politique boo mosaan di politique. gars yi xam nga nan lañ daan def dañu daan ñëw convaincre ñi la wër ñu ci am doole yóbbu leen yow ñu bàyyi la nga bokk ñu gañel hmm. mais Ousmane mooy ko xam ni boo buubee ñëpp du ko tee doon li mu doon mais man xam nga benn acte dong moo ma ci metti bi ñu nekkee di xuloo ci Sweet boote naan dem na fa ak demu fa ñuy détailler affaire yooyu mais pour waa mu jógee jàkka ja ba pare am ci problème waaw xam nga lislaam dafa am yoo xam ne ay convaincre am na ci l'islam hmm. ah, politique am na ci l'islam est-ce que xam nga loolu nit ki bu fekkante ni moom même bu doon bu ñu jëloon kenn ko xam ne day dem ci jumaa ji ca gëmu ko sax bu jógee ci jumaa ji waruñoo xuloo ni dafa jóge jumaa am problème ñun Sénégal hmm. bu fekkee dañoo jël benn nit ne dafa jóge jumaa ci bi mu jógee jumaa ci la am problème billaahi am na ay wëli yoo xam ne boo leen yeewoon tey nga rusloo leen hmm. parce que tolloon nañ jamono yoo xam ne kenn daawul dem jumaa suñu mag ñi fexe ba ñëpp gëm gëm jumaa di dem jumaa respecté jumaa yaa ngi dégg est-ce que nit ki war na mën a Ousmane war na mën a jóge jumaa am problème jóge Sweet Beauté am problème jóge jumaa ja am problème kon léegi fan lañ bëgg mu jóge fa d'accord fan lañ bëgg mu jóge fa xaw ma ko waxa rek <laughs> boobu moom xaw ma ko waxa rek ba pare ñiñ ko sekkanteel est-ce que xam nga euh, nguur hmm. ma wax la dara tëkkante bu ci amee rek réew maa ngi jooy boroom xel tëkkante laa wax de. saa bu demee ba am ci réew. réew mi borom xel la soxla xanaa xam loo Sénégal actuellement nii wallahi soxlaatul borom daraja soxlaatul kara xam nga kan la soxla borom xel yi ñu waxtaan delloo réew mi fu mu nekk. xanaa xam loo réew mi borom xel yi gis nañ fi mu war a placé wu mais képp ko xam ne da ngaa dof. wala képp ko xam ne sa intérêt bopp nga jiital képp ko xam ne da bëgg a dund ngir njëriñ kese hmm. kooku gisatoo réew mi réew mi réer na la d'accord est-ce xam nga loolu waaw yaa ngi dégg parce que ma wax la dara hmm. réew pour mu nekk ci dal la fait que bërki démb ma wax la dara hmm. soo nee am nañu def nàngam dinañ leen wër ba gis leen yaa ngi dégg dinañ leen wër ba gis leen kon yow euh, euh, euh, di dinañ leen wër ba gis leen yow loolu lépp ñoo ñooñu li tax gisoo leen rek gisoo leen lan moo tax gisoo leen lu tax gisoo ñooñu. est que dañoo wër gisuñu rek. déedéet. Hmm. xam nga lu tax gisoo leen. waaw yow sa bopp moo la réer moo tax doo gis ñooñu. d'accord ku sa bopp réer doo gis tey ji sama bopp bu ma réeree man du ma gis ajimaas parce que tey ajimaas mii fi laay gisee sama bopp xam ne lii tax lii toog nii nit la comme man li may yëg lay yëg ba pare tey lu waay doon nit a ko ko def. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais léegi lan moo tax tey ñu dem ba nit ku xam ko xam ni li mu doon nit ñi ñoo ko ko def mhm. mu demaat ba nit ñooñu arrangé tu leen ba pare muy continuer di def li muy def lu tax ma wax la dara mhm. tey xam nga man damaa am problème su ma amee problème mhm. comme exemple laa la wax de ma am problème euh, ajimaas ñëw seet si ma nga am problème ajimaas seet si ko aali bu amee problème ajimaas seet si ko seet si aali est-ce que kaala kaala non non du du nekk kaa. mais keroog bi biis bi lakkee. yaa ngi dégg. sa waay ñëw si biis bi rapidement. ñaata personne ñoo ñoo dee. te moom ñëwul. ñaata ñoo yàqule te moom ñëwul léegi bu ñëwee ci biis bi léegi loolu day tax réew mi nekk ci jiixi jaaxa kon yow sa bopp dalaa réer kon pour nga wan ay nit il faut yow sa bopp nga xam lan la ba pare. d'accord eh, eh, euh, parce ma wax la benn affaire. am na loo xam ne du ko def defloo nit. nome la rek la man mais yow mi mu nomee yow yaay wane lu xam ni yaay wane compétence d'accord ñun waruñu nekk ci sikki sàkka mhm. te ba tey ñun ci sikki sàkka lañ nekk sikki sàkka lañ nekk ñun d'accord di euh, werante fii naa fi jaar fii duma fi jaar fii wóor na fii wóorul le fait que yow ngay wër rek ñun dañuy dañuy ragal parce que yow yaa ngi wër gisuloo. d'accord jàpp nga ni li ñëpp wax que ni euh, euh, peut-être bu dul Ousmane Sonko candidat potentiel bu mën a remplacer Ousmane Sonko mën nañ ko jàpp ni Guy Marius Sagna la. jàpp nga ni Guy mën na ko doon parce que gis nañ si réseau yi ñëpp di wax naan pourtant pourquoi pas peut Guy Marius Sagna ah, il peut le remplacer bokk na ci valeurs yi ah, ak honnêteté bi nekk ci moom waaw même jikko yu nekk si Sonko la ñuy wax que ni moo nekk ci Guy Marius Sagna est nga que xaar nga ci moom loolu ok xam nga Guy Marius Sagna ku nekk xam na ni jàmbaar am na wala amul bu baax mais Guy Marius Sagna ak ak Ousmane Sonko ñu xeex hmm. mu ngi mel ni yow man may man may man may suivre école gendarme yow ngay tur ngay suivre école police ñu ñëw ba ñu ñëw ba ñu war ñoo jox diplôme ñu jël di diplôme police bi nga doon suivre yow jox ma jël sama diplôme gendarme jox la mën na nekk. ok d'accord gendarme gendarme la police police la. bokkuñ filière quoi. waaw non non. Mhm. problème bi gendarme lañ soxla pour mu régler ko mooy Sonko mooy gendarme bi. <laughs> comprend nga ni ma waxaatal loolu ngir waaw nga ne sa problème bi gendarme lañ soxla mu régler ko non problème bi problème gendarme la gendarme bi lañ soxla mooy Sonko yaa ngi dégg bés bu ñu soxlaa problème mu police dinañ <laughs> wooyo guy yaa ngi dégg loolu laa lay wax nii quoi parce que ñoom ñaar ay ku si nekk jàmbaar nga mm-hmm. mais li Sonko di apporter yaa ngi dégg ak li Guy Marius Sagna di apporter mm-hmm. yaa ngi dégg ak Karim Xrum Xax keneen ak keneen xam nga bokkut is different mm-hmm. comprendre nga ma la bokkut jeex na comprendre nga ni ma la wax jërëjëf merci beaucoup Jimbori ñu ngi nuyu bu baax a baax Faba Kassé ah, mm-hmm. euh, euh, di nuyu tamit euh, ñoom El Hadj El Hadj ak xarit suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi ci plateforme bi di ñu bàyyi xel bu baax ñoom Ami Ndiaye ah, ñu ngi bég ci yéen bu baax a baax ñoom Cheikh Nandaw ndaw ngeen jëf mbokki xarit yi nga xam ne dëgg yàlla yéen ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci euh, topp cas du jour bi on continue de plus en belle ñu euh, demaat ci beneen chapeau cas bii ñuy waxtaanee nag kaa la bu un peu euh, particulière parce que tamit ki ñu koy defal yàgg nañ ko waxtaanee waaye ces temps-ci elle est actuellement en train de défrayer toutes les chroniques moom moo occupé algorithme YouTube bi kooku nag du kenn ku dul aji saar parce que gis nañ ko mu génn ay beñe di mel kuy kuy ñaawal wala.